tuddee fraternité mu wala delluñ ci diggante mbokkoo gi ak xarito bi am ci biir dëkk bi parce que Saly itam benn benn la ah Saly réyul yaatuwul euh, quinze quartiers xam nga ñuy wax donc li ci am solo mooy ñëpp xam ne lii dañ ko organiser pour ñëpp ñu bokk ndoon day bokk bàyyi yaa ngi ñëw équipe yi soxla nañu football nañu ay compétition soxla nañu jongante pour préparer nawetaan pour mën leen permettre fii ak nawetaan yi ñëw ku nekk mën naa nag loolu moom moom ñëpp mesure nañ ne farata la moom maire bi xam na ko autorité xam nañ ko li ñu doon wax mooy problème espace lañu waxoon léegi espace bi disponible na école primaire bi toxu na léegi espace bi nga xam ne moom la ñu mooy outil yi bu rek ñun ñëpp ci nekk nag la nga ci nga def ko ci comme ça a daje rapidement ci at bii di ñëw wala ñaari at yi di ñëw stade bi a pare ba ñu inauguré ko yàgg nañ ko jooj autorité yi parce que depuis ñu fi ne maanaam depuis Saly nekk ko commune ba léegi amuñ infrastructure bu baax amuñ terrain bu baax terrain bi ma fa njëkkoon nekk terrain bu dem ba de élaboré ñu toxu Mbour ça fait depuis dix ans ñoo ngi joué à Mbour et jusqu'à présent c'est pareil ba 2024 bi on va jouer encore à Mbour te loolu c'est déplorable ñoo ngi ñaan aussi di ñaax suñu autorités yi ñu gën cee def effort pour la jeunesse de Saly quoi